salaamaaleykum sama gars waaw cheikh bi del si na dee waaw waaw tey nag moom breaking news la kii bonus la parce que nee nañ gor ca wax ja waaw dafa am lu ma waxoon suñu genn waaye ñu koy wax Ousmane Tounkara tey jii ma nga ca senegal waaw rey nañu fii ci otom bi def na fi ay live et waaw man samay vidéo yàgg bu ngeen xoolee bis wax naa ko fii di ko laal di ko wax dëgg ay gaayam yu bare weddi ma ne mu tunkara musul saaga tunkara du saaga tunkara mooy tere xale yi ñuy saaga ci réseaux sociaux yi mooy def lii mooy def laa man leen xaadim du leen ko fenloo man tunkara defuma dara musuma def dara xaw ma kuy tunkara tunkara xaw ma ci réseaux sociaux yi laa koy gisee gis waxam yu ñaaw jëfam yu ñaaw may contesté loolu di ko ñaanal yàlla mu génn ci loolu bisu dara kam waaw gannaaw nag jàppee woon nañ ma ay fenkat te bu ngeen xoolee ca vingt cinq be newoon naa ko naa la woon fii sa vidéo balaa yàgg ah, boo xam ne dañ xam ne man du may wax du bañ nit man bañuma kenn yàgg naa ko wax lépp lu ma leen wax fii ci preuve laa ko teg ci dëgg laa koy teg lu ma amul vérité du ma ca wax du ma ca dugg du ma ca ñaaw waaw weddi nag gis daf ca bokkul yéen ñi ma doon wax naan ma tunkara mutu saaga ganaakat bàyyil fen yi li ngay wax du dëgg naan leen wan ne man du ma fenkat moom mooy fenkat bu mag bi xam nga lu ma bëgg nag ngeen déglu ko ci lan lay def lan la doon wax Macky Sall ma waxoon leen ko xam nga li may wax gars yi toujours ñi nekk Europe ñi nekk amerique nda ci laay bi ku la neex saaga ku la neex daggal kooku permettre lañ la ko boo nekkee ci àll bi waaye nag góor yàlla day ñeme ca la muy wax Xaadim Gaydé li mu leen di wax fii daaw ba ren barke Serigne Touba bu demee Sénégal la même chose lay continuer di ko répéter du ci am lu muy soppi aw ma lu ñaaw lu may wax jéem ma koo def waxuma lu may nëpp làqtuwuma te ragaluma ca kenn ca la may wax waaw nit ki nag boo demee bay wax di nëbbtu ah, xamal ne la ngay wax du lu baax nit ki nag di gëree di ngand ngan lu ci réseaux sociaux c'est facile mais maintenant quand tu seras sur le territoire sénégalais vous faites une goriale de dëgg nga ah, ngay doon ko def fa nga nekkoon digir way gaay bu ma demee nii laay def senegaal loolu laay déglu tey jii ci Ousmane Tounkara mi nga xam ne si amerique dégg ngeen ko lu ne wax na ko ci Macky Sall lu ne wax na ko ci Sénégal lu nekk xale yaak ñëpp jéem leen yabal ñu rey seen bopp ñu tuur seen ay deret pour mu ñëw di ko bàkkoo fii bu ngeen dégloo vidéo bii ma leen di tegal nag hmm? yéen ñi doon wax ne man damay fen ma xamal yen ne yéen fen fenkat yi wala moom mais ngeen jàppale mooy fenkat bi xaadim gay du kàcci du fen du sosal nit lu ma wax wala ma won leen ko lu am ay preuve la dama bëgg na ngeen dégg lan lay wax fii Macky Sall way juri Macky Sall famille Macky Sall famille Abdou Diouf ak ñoom ñëpp lan la leen tunkara wax ba mu ci dama di wax la leer man lumay wax day leer vidéo bi amerique la ko defee defewu ko Sénégal bëgguma ñu gis ko yaakaar lu mu def Sénégal démb la wala tey déedéet daaw 2018 la ko def en Amérique ñoo ngi 2019 bàkku na ma nga Sénégal bërki dem gis ngeen ko ca cour constitutionnel ba moo caméraman kenn nekku fa woon muy woone du dara bu doon tus la ku compté dara tey presse baak ñëpp ñu ngi ci gannaawam fu mu woote ñu wuy si ko fa mais dara waaw one million march boobu gis nga opposition bi ñoom lañ dajale seen i gars yi ñoom ñu àndandoo dem mu koy jaarale ci one million marche ok yooyu nag dana leer tunkara waxoon naa la ko nit nag day ñeme Assane Diouf mi nga ne moom ngay xeexal yow sa faux li ko wax ci audio yi dégg nañ ko et tout kii nag du audio lu leer la ya toog di wax ok Assane bi mu jógee Amérique ñëw dafa assumer lim doon wax dafa kon ne wax ko bañ dugal ko ca fitna bee mu nekk tëdd na ko xam na nu mu demee nekkal góor yàlla ko moom nag sa ngand ngandalu bi sa réeg réeglu bi jaay boo yépp nga ne yaay seen leader yow yaay leader bu bees bi ah dama bëgg na nga répéter les mêmes choses gars yi na ngeen déglu lii ba pare ñu déglu tunkara feek muy jóge Sénégal lan la fay wax ndax dina répéter lii bis boo ko defee barke Serigne Touba boo répéter lee mêmes choses si la territoire sénégalais boo ñëwee man ma jaamula ma topp sa ginnaaw yow nga nekk sama liider waaw waaye boo ko deful tàppet nga bokkat nga ne ca fële di saaga ak di yuuxu dafa yomb trop. gaay yi nag bala muy gudd xam nga lu may def tegal leen ko ngeen dégg ko di ko may nag ñépp ñu waxoon ne man dama doon fen dama doon kàcc man du ma kàcc nit kenn waaye du ma nangu kenn di ma teg ci gannaaw naan ma fenkat nga déedéet Tunkara siquma ak moom lenn xaw ma ko xaw ma waaye nag di nangu ñu naan waxoo dëgg ndax loolu Tunkara waxu ko dama leen koy tegal ngeen dégg ko ci gémmiñu Tunkara moo ngi nii amerique la nekkoon lii muy wax fii nag dama bëgg mu répété ko ci senegal googu ñu xool nan lay delloo amerique bu dee dana fa delloo xool leen ko après ñu ñëw peace. sama xol bi nag tey neexul parce

loolu man mako wax buma ci kasso je m'en fous ñun ñu kasso ñun ñu kasso ñun ki ñu ragal yalla la tuddu yalla moom mom aduna bi du Macky ça appartient pas à Macky Sall Macky Sall moomul àdduna bii yàlla moo ko moom ñun ragaluñu Macky Sall lëfal ndeyu Macky Sall ak ki ko jur bu fekke ñun faalé nañ ko le bâtard de merde il nous a tous insultés pourquoi ça a ma tagal la ci sa voilà ñun n'aimons la Saga. Macky il a insulté tout Sénégalais dans le territoire sénégalais avec son imbécile de Moustapha Niass il nous avait dit que dinañu jóg bu ñu la loi bi quelques personnes vont mourir et la loi va passer dans kharam yoyu Moustapha Niass reyal sa Dom doomu Karoul, bi tu n'es pas bon pour notre société baaxuloo pour Sénégal Karul. le salaud de merde Sénégal réewu góor la ñun ay góor lañu ñun dafa am lu ñu gëm ñun dañu am ay principe am ay valeur te valeur yooyu ñun duñ ko jaay man xam naa loolu mes frères et sœurs ñun duñu jaay suñu ay valeur ñun duñu jaay suñu ay valeur Macky Sall mooy jaay taatam pour cinq dollars parce que c'est un PD moom dina jaay taatam Macron ñun duñu def loolu on ne va pas à nos valeurs. Nous, nos culs sont fermés. Cabinet Nous, nos culs, ce n'est pas pour les hommes. mais Macky de bâtard là, na France loolu affaire Macron Macron bu ko joxul comme na Macky Sall def dites-moi parce que Macron était là quand Macky Sall mentait donc France. Je suis day tourner décoration de mensonge le même sale type qui a mis 25 élèves dans une école Nemba que voilà école bobo 25 trouvé muy di doul, doomu bu ne voilà maintenant Macron de quoi décorer look Macron di décorer na jël or dugal ko ci ba salam Dem, Macron les salauds de merde ah jël suñu dëkk di rey suñu ay doom di rey ay doomu sénégalais les bâtards là se décor de décor de quoi lakk leen intérêt français yi lakk leen seen ndey doomu xaraam yooyu lu mu leen di décorer qu'est-ce qu'il décore wax leen ma lan la Macky Sall def lu ko nit mën a décorer wax leen ma lu Macky Sall ban njëriñ la amal àdduna bi ba nit war koo mën a décorer wax leen ma rek lan la Macky Sall defal Sénégal lan la defal aduna bi dites-moi l'utilité de Macky Sall dans ce monde wax leen ma benn cas bu Macky Sall changé bu dul dara nañu ne Senghor boo tourné ci aduna bi tey c'était un bon écrivain tu lis ses livres Léopold Sédar Senghor et il a fait quelque chose pour le Sénégal et on le connaît tous Macky Sall si c'est pas un PD comme son Abdou Diouf la wax leen ma lal ban njëriñ la Sénégal c'est un PD comme Abdou Diouf wax ma ban njëriñ la amal Sénégal dites-moi wax ma benn histoire du Sénégal bo xamné dafa bok ci Macky Sall wala Abdou Diouf au moins Abdou Diouf tekki wul saram ndeyam parce que keur sax amuko ko Louga Djili Mbaye moko tabaxal këram j'ai vu l'histoire moi moi j'ai été à Louga j'ai été au palais de Djili Mbaye man dem naa fa je connais ses fils dem naa ci biir pale boobu këru Ablaye Abdou Diouf gàcce moo jàppoon Djily mbay ne président nga dëkk ci dëkk sa ndey ak sa baay dëkk ci ay barak doomu xaram yooyu noonu la ñuy dundee c'est des fils de bâtard noonu la ñuy dundee ci barak la dëkkoon ndeyam ak baayam Djily Mbaye moo leen tabaxal kër soo leen ma gëmul laaj leen historien sénégalais yi ñu wax leen ko laaj leen ñi xam ñu wax leen ko Parce que moins moment, he was too stupid to steal il était trop con pour voler Il du xam sax koy def il était tout stupid mais dis stupid Macky dis le stupide stupid bâtard Macky ma dolli l'en ko ci moom yaakaar ne au moins il était a Sénégal bi Diko Sénégal. jël di a bitim Sénégal gis à flagrant délit Ablaye Abdou Diouf deful woon loolu Ablaye Wade deful loolu Ablaye wadd loo ko mën a jiiñ ci àdduna xoolal keroog bi mu tàngee Sénégal le juin ab Ablaye wadd dafa retiré waat progrès euh, kii yam boobu euh, loi yooyu nga xam ne moom la bëggoon passé pour xam ne que vraiment bugguma bundu xataal waa Sénégal bugguma lor sama dëkk. parce que deret bu demee ba tuuru ci dëkk ce qui veut dire que les gens ne sont pas satisfaits doomu saram ndeyam bi comprendre loolu reyal sa ndey Macky Sall reyal sa yaay nga xool nan la mel reyal sa yaay reyal say doom reyal say doom nga xool nu mu mel man am naa nakar parce que doomu jambour dee na te man maa nekk ci internet bi di xeex chaque jour ak ñoom je suis là à me bagarrer avec eux chaque jour ma di digal ne leen nañu xeex ñu xalaat ne ñun ay nit la ñuy ñu xalaat ne que ñun ay li ñuy def démocratie la suñu indépendance la suñu suñu constitution la protéger but obviously that's not the case we against a monster so we have to act like a monster to to bat to combat a monster booy xeex ak monstre da ngay nek monstre monstre mënta xeex ak janax donc ñun mënatuñu nek ay pitch nek ay sindax nek ay petit truc il faut ñu nek monstre comme Macky Sall dajji fal ndeyam xeex ak moom jàkkaarloog Mom won ko ne ay say say lañu ni mom il faut ñu jakarlo ak Macky Sall genn leen ngeen tassare nday Macky Sall voilà ne laissez pas faire moi je connais que you not soft ndax man ku ma gis xam ne du ma góor jigéen xam naa ne doo leen ay góor jigéen moi je sais vous pas des PD man xam naa ne sama frère yi du ñu ay góor jigéen vous êtes en prison je sais pourquoi parce que ay jàmbaar ngeen vous êtes des guerriers ay xeexkat ngeen vous êtes des warriors that's what we call it warriors and wallahi Macky we are warriors and we coming for your ass wax nañ la ko nga defe ne tëj benn Assane Diouf loo ko ci kaso bi tëj benn xalifa Sall disparaître loo ko ci kaso bi tëj benn Barthélémy Dias sa stupidité waxu la ne que on est quinze millions quinze millions de sénégalais moo am ci àdduna bi te jël quinze millions nga jël kaso rëbës bu bon boobu nga xam ne sa ndey néeg bi mu doon tëdd sax moo ko tane parce que sa ndey baadolo la doomu cottu ndeyam la amul fu mu tëdd yow xam nga ko ñun xam nañu loolu doomu xaj nga sa yaay amuloon fu mu fanaan sa yaay da doon toggante ci ay restaurant sa goro bi yaayu Marème fay Sall fii la doon togg ci ay restaurant New York ñun xam nañ la ñun mënuloo ñu jaay lu amul bataar ñun mënuloo ñu jaay amul tu étais un pauvre bâtard sa sax dafa doon xasaw amuloo woon foo tëdd foo un salaud type comme toi ngay jël ay doomu jàmbur di rangale ci ay ay ay kaso boobu nga tuddee mètres xaw ma mètres nga jël nit ñi di leen tëj foofu di leen souffrir loo nga toi tu es un imbécile tu dors tu dors salaud que tu es salaud nègre que tu es ñun tu dors ñun jaaxalooñu tu es un nègre ñun jaaxalooñu tu es un nègre comme le reste des nègres li lañuy wax nigga bo gis ñowé Amérique bo né nigga nigga ça ne veut pas dire un noir nigga c'est un nègre qui ne connaît pas ce que ce ce qu'il est un nègre un nigga un nigga moy Macky Sall mooy ku xamul ko doon yow doomu baadoola nga loolu nga doon baadoola nga namp baadoola ngay dee ngor kuko ko namp mooy dee ngor baadoolo ku ko namp baadoolo ngay dee mbam ku namp ngay du nampal nit nit du namp wenu mbaam c'est pas possible yow mbaam nga tu es un naan mbaam nga badolo nga badolo ngay dee Macky Sall même si tu as des milliards j'ai des milliards j'ai des milliards badolo ngay rek la ngay baadoolo ngay dé tu vas finir mal tu vas voir dinañ ko wax di nga tok bis boy dé nga rappelé au jour bi ne y a des gens qui me le disaient et j'ai pas compris tu vas finir mal mon frère tu vas finir mal bu la mon frère tu n'es pas mon frère tu vas finir mal animaux animal tu vas finir mal yow di nga ce, ce finition du tu es un salaud de merde tu vas finir mal voilà nga japp domou jàmbur di len bundu khatal di leen sànni ay lacromogène di ray rey sànnil sa yaay lacromogène moo war a dee ak sa baay doomu xaj bi nga doon yow doo nitu dara chem salo doo nitu dara jëlal lacromogène bi nga dem sànni ko sa kër baay bi nga xam ne moo moo ko xaalisu réew mi nga sàcc def ko fa demal sànni fa lacromogène seen waa kër dee parce que amu njëriñ ci àdduna bi lacromogène al sa njaboot amu njëriñ vous n'avez pas de meaning dans ce world vous n'avez pas amuloon dara loo leen di tek ci aduna yalla bi yalla nee na doomu adama bu juddote te ben benn ci aduna bi nga De moko gën demal sànni la sa kër ndey ak sa bay amuleen njëriñ ci aduna bi vous êtes une malheur pour notre pays wallahi demal extinguishe ñi dess sa njaboot pour suñu dëkk bu mu infecté parce que vous êtes infecté vous êtes contaminé ay nit ñu bon ngeen voilà mes frères et sœurs s'il vous plaît bu len naqarlu bu len s'il vous plaît xam ne lima metti mo len metti mais xex bi dafa soga commencer la guerre commence la guerre civile commence du arrêter ak Macky on n'arrêtera jamais on n'arrêtera jamais jamais jamais au plus grand jamais mes frères ne reculez pas vous êtes braves wolen ñu wolen ñu nos frères ñu ngi fundraise wolen ñu képp ku am nakar képp ku am jafé jafé wolen ñu ñu parce qu'on est tous de même père et de même mère si frères et sœurs yi ku euh, santé ku support on n'a qu'à se supporter nous supporter wante nous c'est important nous supporter wante nous, ñu suñu frères yi ak sœurs yi wala bu am métit nga mën dimbali dimbali ko ay la facture hôpital parce que la vie continue voilà s'il vous plaît nañu taxaw suñu frères et yi c'est très important nañu taxaw suñu frères et yi nañu taxaw suñu frères yi c'est très important parce que ñoom ñoo nekk ci terrain bi comprendre nga parce que ñun peut-être mun nañu ne Amérique la ñu ne ñii nekk France ñii nekk feneen loolu laa leen doon wax bu con yi daan ne les bâtards doomu dunguru de Macky Sall la buñ daan ne waaw ñëwal waaw ñëwal ci terrain bi ñun ragalu ñoo ñëw ci terrain waaye xam nga dafa fekk guerre ku nekk dafay am foo jàpp ñun ñu ngi jàpp fii ci réew tuba bi di xeex ak gars yi ñu ngi introduire ay pétition pour kattan day seen président boobu ci biti le bâtard de race là on va le sortir du Sénégal buñ ko génnee Sénégal bu ñu paree ñu ñëw diggaale li ci des mais nos frères et sœurs ñi nekk ci terrain bi di mettitlu di gaañu on vous supporte te billaahi dinañ leen dimbali lépp loo xam ne dal na leen ku gaañu comprendre leen nag bu ñu nee gaañu bu ñu ne rek ku soj tuuti góor mën naa soj góor mën naa faxastalu góor mën naa foxoj man mii maa ngi nii foxoj mais ku ay ay conditions yu aggravé yooyu nga xam ne dafay soxla euh, support waxuñu nag comme euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak xam nañ koy defee mu nekk lu leer lu ñuy jaarale rek ñu jaarale ko ci lu leer ñu wax ko wax hôpital beeg yooyu ñu yónni fa mu dem constater bu constater ne que y loo xam ne soxla na suñu support ñu support on le fera bu len bu len wori you know on n'est pas des traîtres on est des patriotes on va vous supporter à 180% 180% 180% on va vous supporter non def ko 200% on va vous supporter duñ mes frères yeen ñi nek ci yéen ñi am frères et sœurs ci biir fofu ma ñu waxtaan ñu wut du def lu comprendre comme euh, on va laisser seulement la ligne ouverte demain ak comme li ma wax ngeen may parce que damay jël ay waxuma ñun ñi nek ay xarit mais comme ñi ñi am ñi ak hôpital yi on va avoir des informations parce qu'on a déjà contacté ici la Croix-Rouge dinañ leen dimbali ba pare ñun tamit dinañ leen dimbali financièrement li ñu man bu fekkee borom dafay liggéey wala dara mu manqué liggéey wala dara lu ñu mën a dimbalante rek dinañu fexe dimbalante ko li ñu man parce que nul ne parfait bu leen fàtte ne ñun nguur joxuñu xaalis amee la ñu nguur dara dañuy ay citoyens sénégalais yu bëgg a dimbali suñu ay mbokk ci njëkk ak teraanga donc loolu moo ñu tax a jóg donc nañu dimbalante joxante loxo comme li ma leen wax suñu soldats yi bari ngeen ci terrain bi nañu dimbalante ak suñu frères yi nga xam ne amuñu moyen wala dañu nek ci ay conditions yu euh vraiment aussi gisoon naa fa tey benn jeune bu brave ah nana ne ñaari jeunes yu brave yo xamne suñu xarit lañu ci suñu association yi lañu bokk bugguma sax tudd sen tour tamit bugguma len indil jafé jafé parce que en ce moment on est en guerre on est en guerre donc day faut bugguma di tudd tour nit ñi parce que bugguma ñu def len target mais on a qu'à attaquer on n'a qu'à attaquer. On a, il ne faut pas qu'on retourne. Nous attaquer. On n'a qu'à marcher. Voilà, sama gars yi defe ni ne ma accusé nan man maay kàcc Tumkara Tunkara musta saaga hein? te di leen euh, j'espère que ku ci am khale bo xam bañ mu dégg ay saaga defe vidéo tumkara boobu pour dégg ko lu ñaaw la ku mel nii mooy taxaw naan jeunesse Sénégal dafa leen di éduquer kii kay soppi Sénégal ki moi kay kham xam wak wax lu jariñ Sénégal magum jëm ak bi jaawam boobu ngeen gis ko ah dégg ngeen wax yu ñaaw yooyu ah ndey jaamro ko ci teg te moom mi tekkiwul dara Macky Sall ndayam la nga ko wax fi ndeyam moo jur président di sa président tey boo xam ne tàppet nga boo xam ne ñemewoo répéter les même choses labax boo ñemee di góor répéter ko fa waaw ka nga doon wax ndayam du dara ah ay Abdou Diouf yaayam baraag la tabax ak yu kenn xamul yow loo fa tabaxal sa ndey wane ko ci film yi bala ngay jóge Sénégal nga ñëw wane ko waaw bàyyi leen yàq der nekk ci àll bi di saaga ay sénégalais ngeen lu yàgg-yàgg lu wiiri lu bukki wiiri wiiri jaari ndaar yi da ngeen dellu si ci réew nga waaye bu dee leader nga bu dee góor yàlla nga bu dee gëree nga répéter les mêmes choses là-bas live yi nga doon raye ci sa oto boobu toogal ci mbedd ma wala fu la neex wala nga luyee oto nga toog fa nga live nga répéter la même chose bu boobaa ñi nga doon xat-xati di wax bay <laughs> bay bëgg a dee ñoo ñooñu daañ la gëm tey waaye boo ko deful tàppet nga yolleekul nga rab takk li nga yor nga dellu Amérique te boo fa demee bu ñu rayati Ousmane Tounkara ok lii nag lu leeral dong la woon sama gars yi di breaking news di loo xam bonus la boo xam ne sii du opération jant bi mais danaa leen ci mosal tuuti doog a tëj mooy loo xam ne le 22 bii ñu jëm ah tey la euh, le 20. 21 22 Macky Sall moo koy inauguré Joal Samba Dia route boobu defe naa ne yéen ñi muy wax fu ngeen ne ci àdduna yéen Sénégal sax mosu leen dégg tur woowu ah. xool leen tali bi ma leen di woon le deux la ko Macky Sall son excellence di inauguré ki nga xam ne moom la baadoo la beeg sikkam ku tekkiwul dara kii ah multimilliardaire boo xam ne zéro la. ci ay wax gese ku ne mu xas la Assane Diouf baayam lii la woon bàyyi mag sal lii la bàyyi Abdou Diouf lii la baayam waxuñu woon mooy lan sa baay bu tekki woon yow tekki woo dara kon nag gars yi leen jox rendez-vous samedi ak opération jant bi numéro 27 xool leen lii nag anticipation rek pour ñu tëj parce que le 22 la gars kii kenn yëgu ko woon de ah après daañu ñëw nag ci pont Farafeñe bi incha allahu bi ci yii di ñëw. mbir mi dana metti de baadoolo bu mel nii dana xam ne ñuy jële Macky Sall ci Sénégal gi du waaye yow ñu mel ne Tunkara yi kii boo leen koy déglu jëmu leen fenn xale yi leen bàyyi ay doomam ma ngi leen protéger de yéen ñii lay jël seen i doom di leen rayaloo seen bopp ah di tuur seen i deret pour ñëw fi di yuuxu ba mel ne ganaar bu ñuy rendi takal li nga yor yéen ñi doon wax damay kàcc déglu leen loolu ngeen xam maay kàcc wala Tunkara moo doon kàcc peace and love gaay leen ci chaîne bi Khadim wax naa leen ko numéro bu yor ngeen ko sino xool leen opération jën bi ngeen ko gis gars yi ba samedi incha allah cheikh bi moom kenn du ko fenloo di des promesse la woon taxawal naa leen ko déglu ngeen ko di leen rappeler vidéo bi nag daaw la ko def en Amérique leen ko nag xool yéen ñiy seetaan yéen ñi koy supporter yéen ñi ko gëm tou na ngeen ko nañ répéter la même chose actuellement bi nga xam ne ma ngi ci territoire Sénégal boobu lu dul nekk di raay raayal tàppet la du ngeen ko fa dégg mu wax yooyu de bu ko fa waxee jeel la jëm nee na ragalul jeel moo gën a tàppet jeel na xam na lu ne ca jeel ba kon nag gars yi peace and love in the world respecté la leen ñëpp man kenn du ma fen loo di tes ciao peace and love again ciao guys